ñoom dañ daan defarlu ay train dañ daan utiliser seen ay ay ay ay matériel de con euh, kii euh, seen seen ressource euh, naturelle di ko transformer def ay train ak yooyu loolu bu ko wàllee Sénégal loolu mooy doon liggéey bi moo tax xool ne sa raison gox bi nga dëkk nangami ministre laak wala Thiès juróom benn la am Thiès Sonko dëkk fa mm-hmm. Euh, président Diomaye xëy na moo dëkk euh, njagañaaw kon mbir mi ki ko man la ñu jox ko ko mais li may gën a seetlu ci demu premier ministre ak communication mooy euh, coloré gi dox diggam ak askan wi saa su nekk parce que coloré moom buum la moom mooy la faatu Guewel di wax nag mbëggeel weñ guy taaweeku la ñaar ñu ko séq ku njëkk a bàyyi rek rey nga sa morom kon dafa mel ni ko askan wi téye Ousmane it noonu la ko téye te lépp lu ko nar a gàkkal mu ngi ciy dox du am mais discours bi nga xam ne moom lay am di ko am vers ndaw ñi man loolu laay gën a saluer ci posture am daal. d'accord c'est important jërëjëf Saa Wolof Fan ah, merci beaucoup ma leen di fàttali rek ne suma beneen imaam ñëwagul waaye suma beneen waa ji ñëw na ah <laughs> Serigne Mbacke Nourou laa ma gëj laa ji Serigne Mbacke asalaamaaleykum wa rahmatulah gaa yëpp a ngi la doon laajte foo nekkoon Serigne Mbacke. Eh, waaleykum salaam wala yaa ngi soog a ñëw. bilaay dew ma sax Matam Gàmbi laa jóge nii Gàmbi. Gàmbi nga jóge nii. xam nga retard bi ma am nii bi émission bi commencé ba léegi. may a ñëw nii. waaw mosul bi may woo. xam nga ci suba yow da nga ma woo appel normal. jotoo ma. nga am xelum dem ci whatsapp ba woo ma fa. waaw booba génn gu ma gàmmee xam nga doo mën a jot. appel normal dëgg de. damaa ñëw rek dem sama kër. sangu lijjanti yu ndaw gaaw teguwaat ci yoon bi ak dëkk bu xat bi dëkk bu xat bi gaa yi war nañ cee wax de. saa wolof. comme léegi Pastef nga bokk. yóbbante naa la ci sa gaa yi dëkk bu xat bi. tacc la def tekk la def oto du bouger oto du dem oto du dikk. dara demul dara dikkul. waaw. décentraliser rek te loolu lu bari lay yàq ci économie. décentraliser rek. diggante sama kër ak fii rek daanaka def naa fi waxtu ak lu teg. def ligne ferroviaire muy priorité. jibi hmm. loolu bokk na ci li ma li ma li ma li ma téye ci àll bi ba léegi. bi ma jógee Gambie it ba ñëw ba Mbuur ba dugg si Dakar damaa yàgg ci diggante péage yi lool entrée yi. jam ñaa jooy Dakar. temps bu baree baree bare nga fay def loolu it gars yi nañ ci yëngu. sëñ bi ci priorité yi la. jam ñaajo mooy dakaar lu tax nga wax loolu. presqu'île la di Dakar. waaw jam ñaajo di bunt bi jam ñaajooy Dakar boo jëlee ville tuxal ko jam ñaajo da ngaa tuxal problème yi. waaw dëgg la te day gën a bon. gis nga yi ñuy wax ni naan ay autoroute à mm-hmm. xanaa moo loolu mooy gën a indiwaat embouteillage. autoroute embouteillage la kon la autoroute à péage xam nga da ngaa def. Touba ma ne la autoroute à xam nga autoroute embouteillage. xam xam nga boo nee embouteillage. saa moo sawar ci waxtaan. ya bu yóbbu yàlla yàlla moo yàlla moo butee <laughs> maanaam fii dafa yaatu. waaw nga jógee Touba dugg. nga defaat ko Kaolack ñu dugg mm. jaw ñaajo lay xaar boo ñëwee léegi catu mm. bouteille bi mm. looloo tax ñuy wax embouteillage mm. léegi nag loolu xam nga lan moo koy dindi da ngay fexe ba def yoonu saxaar mm-hmm. ligne ferroviaire nga xam ne tuuti amoon na benn image bu ma téeloon mm-hmm. boo xam ne tey diggante Kaolack ak Diourbel nga am noo def foofu li nga def jam ñaajo fii boo ko defoon foofu tey ah da man damaa xam ne bi ma jógee mbuur ba ñëw Dakar damay wax lii ci jafe-jafe réew mi la bokk jibi lan moo la bàyyi fii nga pour wax jafe-jafe réew mi ñu saafara ko lii dara gënu koo nekk priorité bi ma jógee Mbour ba Dakar yaa ngi dégg ay une heure de def wala matu ko mhm. waaye diggante ma def dakaar ak sama kër daanaka mat na deux heures moom laa la wax mooy am li nga wax parce que day gaawee fële ñëw Touba mhm. nga jëlewaat Kaolack mu gaaw mhm. ngeen daje nag mu doon bouteille d'accord dina daal service wu euh, El Malick gi ñu ñëw toog fii ñu waxtaanee loolu beneen loolu moom mënu koo régler jamono yi mais nañ posé débat bi rek non posé nañ ko ndax loolu Ah, xanaa liiroo kii programme bi waaw ça loolu loolu yëpp dëgg la li nga wax yëpp dëgg la mm-hmm. waaye ginnaaw campagne ñun mm-hmm. instant bi mm-hmm. <laughs> jafe-jafe réew mi comme ni ko sëñ Mbacke waxee nañ teg lépp ci taal bi rek xool li li ñu mën a faj ci diir bu gàtt ñu faj ko li ñu mën a faj ci diir bu gudd ñu dem moom luñ mënul faj itam ñu teel ñu ñëpp xam ko ci lu leer <laughs> loolu sëñ Mbacke sawla boobu bàyyil ma ko foofu <laughs> premier ministre bu nga ca tey jii mu yëkkati fi ay kàddu yoo xam ne nii donc euh, ku nekk ak lañ ca jàpp tuuti bu dee jot nga ko teewlu ak déjà mhm. action citoyenne bi ñuy def foofu mhm. noonu maanaam setal bi nekk ñeenteelu yoon mhm. ah, ci ay week yoo xamante ni wala ci ay semaine euh, mois plutôt euh, ban jàngat nga ci def waaw jotuma koo teewlu jotuma ko seetaan waaye du tee ma wax ci sama xalaat bismillah euh, ndax bi ma xëyee ba léegi awma temps wu seetaan le internet sax awma ci accès ndax bala nga koy def danga koy tal waaye nag soo ko moom kenn du taxaw di ko présenter benn sénégalais ndax yitteem dogoom dëggoom Cheikh Beye maa ngi koy nuyu baax a baax. Serigne Niang ah Serigne Niang. Serigne mm-hmm. maa maa ngi koy suivre léegi muy wax lu am am solo. Mm-hmm. saa moom bu ma neexee nuyu ko bu ma neexee duma ko nuyu. waaw ah, ñoo ñoo far. <laughs> saa de amul njëriñ. ah saa de amul njëriñ. saa lu tax gaa yi yab la. <laughs> saa de bàyyi naa ko battre si la mu koy bëgg a rey fii ci commentaire yi. <laughs> aca kon léegi Ousmane Sonko moom benn xar kanam la am. Mm-hmm. benn yitte la am. benn jubluwaay la am. loolu. xar kanam boobu ak yite jooju moo ko yàqal lépp lum naroon a am ci àddunaam ci ba muy nekk euh, xawma nu mu tuddati fa mu doon liggéeyee ñu dàqe ko fa impôt et domaine ni ay moroomam di liggéeyee di am teraanga gëm-gëm ba mu amoon ba xeex tey ba réew mi dugg ci ay loxoom amul dara lu ci soppiku mm-hmm. lépp ci cadre defar la mm-hmm. dem ba maatam euh, dem ba seel louis bu ëllëgee mu nekk yeneen gox te lépp defar tax tax koo jóg. Mhm. am réew mënoo koo defar te seetaloo ko. Mhm. am réew mënoo koo defar te environnement ba baaxul. Mhm. lu ci mel ni jëmbat ay garab gis ngeen président li mu ci wax. ak li acte bi nga xam ne posé nañ ko ci yooyu yëpp dafa bokk ci yi nga xam ne dañ koo war a miinal population bi dañ leen koo war a gëmloo tey kenn waru leen caa jiitu ñu ngi ko booleeg di def seen liggéey ba pare di posé acte yooyu askan bi ànd ci ak ñoom te amul daray politique nag loo xam ne lu ci lu ci rax la kon bu demee noonu tey mu dem maatam ak taxawaay bu rafet ba ni ñu ko waxee kon loolu damay jàpp ne réew maa ngi dox réew maa ngi ci aw yoon nañu gën a soññi ñi nga xam ne ñoo yor wàll woowu te gën leen a dooleel ndax yaakaar naa CDC waxtu wu nekk ñi ngi jéem a setal dëkk bi ci sous raison beeg ñi ngi créer bërëb yoo xam ne ñi ngi fay dajale mbalit yi mm-hmm. nit ñi nam nañ am éducation wu mbalit yooyu ñu di ko dajale nañu am éducation wu di séparer mbalit yi ndax loolu am solo la boo ko dee seetaan ci réew tubaab bi da gis dañuy verre bi fii lañ koy teg plastique bi fii lañ koy teg beneen mbalit bi fii lañ koy teg ndax lenn lu ci nekk dafay delluwaat ci askan wi kon bu ko defee nañuy nàndal askan wi di leen nàmputal ci xeet yooyu nga xam ne tubaab yi ñoom dépassé nañ ko bu yàgg ñun ñoo cee door a toll waaye nag gàcce ngalaama suñu président de la république bi ak suñu premier ministre bii nga xam ne ñoom ñoo ñu woo. ci mbir yooyu nga xam ne jëmewuñu fenn fudul ci développement ndax euh, am na état yu fi newoon nelaw tappale daal ci kaw askan wi seeni intérêt personnel kese moo leen fi bàyyi woon réew mi set réew mi am sécurité nekkutoon seen jiite ndax ña waroon sécurité réew mi ñoo daan dal ci kaw askan wi di leen dumaaka tëj ak a rey hmm. kon ñii bu ñëwee indi acte yi di xiirtal ndaw ñi ci ñu defar dëkk bi setal dëkk bi fépp fu fu ñu war a def garab ñu def ko fa président bi jiitu ci yebal ab ministre am ca gox ba na ko teewal ma fa lu ma fa war a def nga def ko fa Ousmane Sonko kenn xamu ko des ci ginnaaw ci loo xam ne luy jëmale réew mi kanam la kon bu demee am fa taxawaay bu toll noonu loolu dama koy rafetlu loolu dama koy apprécier di ko ci encourager di soññiwaat sénégalais yi ñu gën a taxaw ci loolu bale mi dafa am problème bu ci am hmm. saa yu waree ñëw ñu ne le 6 la ñuy def set setal sunu réew communication bi day des. day des bu baax a baax ndax man maa ngi woon Gàmbi tey ci suba laa ko yëg déggoon naa nag ñu ne set setal day am prochain mois comme mois bi bu jot bu njëkk ba. Mhm. waaw kay waaye nag sénégalais dafa féex. Mhm. dafa gaaw a fàtte. pour moom loo xas ba fixé rek boo ci waxul ak moom rek wóorut a jóg jëm palaat plateforme yi nañ ciy communiqué di wax booy tiktokeur yi nga xam ne seeni wax day dem ci askan wi. Hmm. ñu ji ci communiqué. Hmm. di ko bëggloo askan wi ñu def ko ay actes yoo xam ne bu jaralee sax koñ yi ñu tëral ay commission yoo xam ne dafa am nu ñu koy tëralee ak nu koy liggéeyee. Hmm. loola su boobaa day gën a defar dëkk bi day gën a defar gox yi. waaye nag dafa am koo xam ne it ku yaafuus la ci bërëb bi ñu nekk muy Nord yoo meeru yoof gisuma benn acte boo xam ne daf koy posé ci li nga xam ne moom la jiite. ndax euh, bi may ñëw nii tali bi nga xam ne ci laa jaar nga xam ne ñëpp dañ koy utiliser moo jógee euh, ca barabu Seydina Limaamu continué jaar ba ci miiru armee bi ba génn ba ca point 26. ba nawet duggee ba léegi saa yu ma fa rombee ndox maa ngi fa taa xejj waaw buy taw suuf si génne ci mbedd mi euh, ndox mi da koy puus ba mu fees dell ci tali bi oto yi bu ñëwee buñ koy jéggi dañuy mel ni koy jéggi montagne. Mhm. te loolu sëriñ bi xëy indi fa benn misigant mu dégage si suuf si. delloo ko fa mu nekkoon ñu dam yee ko nit ñi am accès ci tali bi loolu ndax bokkul ci set setal mhm. ndox mee taa fa ku fa xuus mu takk la oto yi di takkal nit ñi loolu ci set setal la bokk wala bokkul ci set setal lan moo tee meeru yoof génn génn nit ñi waxtaan ak ñoom ñu taxaw ci loolu man sax maire yi gisuma seen liggéey maire boo xam ne yow bu ñu la falee ba ni ngay wàccee gox ba nga nekk doo gis dara lu fi changé te xaalis a ngi dugg xaalis a génn gars yi bu leen bëggee jàppale dañ leen wax dëgg dañ leen wax dëgg. buñ bëggee jàppale réew mi nañ taxawee nañ taxawu jomaay ak Sonko nan lañ leen di taxawoo ci acte yi nga xam ne posé nañ ko ñuy génn ci mbedd mi di ko taxawee di ci def lañ ca war a def man loolu laa gëm. nañ ci communiquer RTS. Hmm. na jàll ci télévision yi. lu am solo la lu war a yitteel nit ñi la ndax dëkk bi bu se gis nga tey. xëy mu ngi jàll sax. xëy na jàll bi kay moo war hmm. dañ cee war a wax ak nit ñi hmm. dañ cee war a wax ak nit ñi ndax nit ñi dañuy am benn problème Ousmane Sonko rek la ñuy topp. maanaam bu jógee rek bu génnee ñu ne fa mu jëm lam nekk. Mhm. dañuy fàtte sax solo si. te mhm. Ousmane yeneen dëkk yi amul set setal amul set setal. Mhm. léegi na usmaan Sonko demee maatam noonu la waa cees waroon a génne gëm ne seenum usmaan Sonko ma nga fa kan mooy seenum Ousmane Sonko. mooy yitte ji ñu war a am ci taxawal dëkk ba ci mu set. Thiès na gis naa ñu ci jàmbaare lañ. léegi nag loola dañoo war a sensibiliser ndaw ñi waxtaan ci ak ñoom ñu gën ci jublu ndax loolu nawet bii kenn ku ci nekk xam ne ne taw yi bari na. Hmm. bokk na ci li tax mu ñàkk ñoo sonal. waaw set setal bi surtout. gis nga kiiraas bi booy yi doon def noonu. sikkat nga bogaan na ngi naan taw bu am do yàlla xam na ne bu tawee ba pare. quelques minutes. ndox mi mi day dem. loolu teg nga ci sa ndox sonalul kenn ren. waaw te mbënd mi ak inondation bi seex bi gis nga jafe bi ci nit ñi daan am. sekkarti googu ñu doon sekkarti canal la génn bépp mbalit bu nekk ci biir dëkk bi. stocké ko oto mbalit yi jël ko yóbbu ko fañ ko war a yóbbu. ma ne la lu ama am solo luy participer la ci li nga xam ne mooy noppal nit ñi kon dama bëgg ñu gën ci farlu gën ci góor góorlu président bi tam communiquer ci ak askan wi ndax àdduna lépp communication la loo bëgg noppalu ca coono ba nga ca war a daj doo ko ca daj mu yomb ci yow day fekk mbooloo dañuy daje songandoo doo la mm-hmm. te askan wi xëjuñ ci mbalit mi nekk ci réew mi kon nañ ko saxal nañ ko farataal euh, Rwanda gi nga xam ne ci la sax gis nga ko bokk na ci pays yi gën a set ci àdduna bi lu leen ko may yitte président bi bu nee acca kenn dootul des ñëpp seen yitte la te lii nag nekkul lu jafe. d'accord acca. Seydina Issa Laye Samb la xam naa ne Seydina Issa Laye bu dee yaa ngi ñuy seetaan le maire hmm? de Yoff jombul di nga ñëw fii ci plateau bi géewal bii di ñëw incha allah ngir ñu waxtaan ak yow ci njekk ak teraanga <laughs> ah, ci lépp lu soxal réew mi ak tolluwaay bi alors euh, Serigne ñaar ñi ma jotoon njëkk jox kàddu muy Sawolof ak euh, Serigne Mbacke nuru laa ma ko remercier baax a baax di ko wax ne maa ngi ñëwaat donte dafa tardé mais euh, ñu ngi wax ci wàllu action citoyenne bi nga xam te ne ni ñu ngi koy amal di set setal euh, ñëpp ko constaté ah première journée bi dafa amoon engouement bu mat sëkk boo xamante ne ni c'était avec le président mais li yi wax mooy lu ñuy gën di dem affaire yi day gën di wàññeeku en terme d'engouement quoi peut-être foofu lañ koy waxee ak engagement Euh, naka la ñu mën a def ba affaire yi du du wàcc mais muy gën di yéeg ñu koy gën di pérenniser su ko defee mu nekk loo xamante ni lu jëriñ réew mi la ci fànn yépp waaw bon en réalité foofu moom am naa si ñaari xalaat ji bi. ati parce que action citoyenne te citoyenne nga nga tàmbalee. Mhm. xam nga foofa ka fay tàmbalee mooy ko xam développement. xam ko xam processus développement développement fan lay tàmbalee en réalité. Mhm. gis nga man euh, yàlla dogal na. Euh, bari na réew yu ma jàng seen processus de développement fi ñu tàmbalee xëy ñu xëy rek rafet ni taaru euh, en réalité dama gis ni autorités yi waxuma ne nag fañ jëm daañ yegg waaye nag loolu ñu leen ñaanal moo ñu yegg fañ jëm mais xam nañ yoonu développement fan la ak naka la mm-hmm. ndax la ma gis ci ak fa ñu tàmbalee dafa am un conseiller technique bu urbanisme bu ma woo fan yi mm. ne man dama dégg nga def benn intervention ci pôle yi ñu teg pôles yi ñu wax ni moom la ñuy teg les huit pôles am ñu génn di ko caricaturer ne dañu am déception ci liñ ñi dañ fiy jëlee lii pour teg fi ay pôles ma ne ñu ko wax ñëpp dañu passé à côté c'est que xamuñu xamuñu lan mooy développement en réalité Macky Sall am na ñu ne defar na ay ponts yu rafet si dëkk bi am na ñu ni defar na ay tali yu rafet ci dëkk bi mais est-ce que dafa tax sénégalais bi xiif war a lekk am lu mu lekk est-ce que dafa wàññi dara ci jafe-jafe sénégalais yi. kon ça veut fa ñu tàmbalee foofu moo dul tàmbalikaay bi. Mm-hmm. parce que mooy fi mu li ma junj léegi développement c'est un processus te processus bi ba fa njëkkee mooy ci li kilifa gi doon wax léegi mooy ci civisme nit ñi il faut ñu yar leen ci ak cat loolu si processus bi loolu mooy moteur yi yi war a déclencher développement citoyenneté boo ko amee rek dangay am patriotisme da ngay bëgg sa réew te ku bëgg réewam defar réewam jariñ réewam léegi nag tubaab yi ngay gis. ci valeur yooyu la ñu fexe ba jaayante ba yar si seen ay citoyen moo tax yenn réew yu rafet yi ñuy wax ni ak Rwanda ak yooyu dañ ci tàggat nit ñi ba nit jomm na ci moom mu jël benn brin almet taal ko tux sànni ko si mbedd mi parce que loolu suuxat nañ ko ci moom en réalité léegi na nag processus boobu laa gis ni en réalité gars yi si la ñuy tegu léegi ci lañ commencé di tegu parce que nit ñi foog woo waleen ci valeur yooyu tey ci collectivité territoriale yi mais bu inondation amee mairie bu ne ci mairie yi muy wax bari na mairie yoo xam ne seen buntu agence fa ñuy liggéeyee mairie ba dafay taame dañuy mbank seen loxo di xaar état bi. Hmm. parce que dañ naan bokkul si compétence su état. ma gis ni ci pôle yi ñuy ñëw pôle yi la yoo xam ne dañuy ñëw pour accompagner loolu. loolu dinañ ci dugg dañ ko développer mu gën a yaatu mais en tout cas ce qui sure sûr et certain ñu ci yoon woo xamante ni bu leen ci Sénégalais yi fekk see yoon la bu baax yoon la boo xamante ni en réalité dina accompagne ñoom processus de développement ba ñu bëgg muy citoyenneté ak valeurs yooyu yëpp entre autres maintenant nag beneen aspect bi mooy il faut ñu gën a góorgóorlu jibi si mesure d' accompagnement yi. surtout waaw parce que xam nga des fois ñu set setal comme keroog li ñu dal set setal nañ weer wala ñu génn ca ñu xëy mu taw maanaam fa ñu set setaloon fu bëri mbalit ja fa xawoon a des taw bi raatale ko foofu yëpp léegi processus bi ak ay mesures d' yu fortes. parce que boo demee si yenn localité yoo xam ñu ngi koy set setal dikk yi mais teguñu fa ay ay ay la nga xamante daan na am daan naa gis bu yàgg foo xamante ni en réalité boo génnee gisuloo oto mbalit daan fa mën a teg sa mbalit wala daan ko fa mën këpp bu oto bi ñëwee daal koy jël daal di koy sànni kon damay wax ni nañu gën a insister gën a góorgóorlu en tout cas ci mesure d'accompagnement mais en tout cas le processus véritablement c'est un processus bu nga xamante ni fa mu jëm en réalité baax na parce que jàpp naa ni euh, lu baax la ci. ci wàllu discours le le premier ministre Ousmane Sonko tey jii suivre nga ko ou pas. waaw bon discours bi malheureusement. waaw pas eu le temps. d'accord de suivre l'intégralité di discours moo tax j'ai pas eu j'ai moo tax bëgguma ci euh, prononcer. alors justement moom xamle woon na ne fi mu toll nii ci junju. Mhm. ne ne ne ci wàllu rédition des comptes donc dinañu dem ci processus bu am solo ku ku guuxoon di nga goxi xaw ma noonu su mm. fekkee wolof bi jub na saa wolof. opération goxi waaw opération goxi boobu jàpp nga ne ni nga gisee ni mbir yi di doxee mooy déclenché nañ ko te dinañ ci yegg lu lu gën a gaaw. non bien sûr xam nga PJS muy pôle judiciaire et financier boobu dafa euh, làng lépp.